fi fas yéene dalal ñi nga xamante ni euh, kenn si ñi nga xamante ni ñoom ñoo daal di am euh, ay litige fële ca kunun la xewee ay kër yoo xamante ni dañu xëy xëy daal di leen di toj une vingtaine su ma juumul dama koy bàyyi mu nuyoo ba laataa ñu daal di dugg ci débat ñu ngi lay dalal. salaamaaleykum Astou salaamaaleykum waa Sénégal salaamaaleykum euh, waa diaspora maa ngi nuyu ñëpp di siyaat ñëpp di ñaan euh, réew mi yàlla na fi jàmm yàgg euh, di profité itam di la remercier si invitation bi mm. euh, de passage aussi ñuy ñaanal suñu yaay ji fi làqu muy Seyda Mariama Niass mi nga xam ne maanaam def na lu mucc ayib si wàllu jàngale xale yi di ñaanal itam suñu sang bu baax bi Serigne Saliou Mbacke mi nga xam ne bi mu fiy génneeg léegi ay at la te démb lañ ko doon commémoré. Mm-hmm. nga ñëwaat ñu daal di ci loolu nga xamante moo tax fi mu di mbir mi xew kunun yow président collectif nga mhm. jamono ci est-ce que mën nga si dellu waa man su man may euh, porte-parole collectif euh, des maisons des victimes yi nga xam ni maanaam ñoo leen toj seen kër kunun euh, jëf ji nga xam ne ni mu ngi amoon depuis le vingt 26 novembre bi passé ça fait presque un mois yoo xam ne nii euh, maanaam toj nañ suñu kër si euh, tojun boo xam ne nii maanaam euh, kenn yëgaluñu xamuñu nu mu demee te ba léegi nii ñu ngi yëg di wàcc ñu ngi yëg di wàcc te boobu ba léegi amuñu ci benn benn benn retour mu nekk loo xam ne ni maanaam jaaxal nañu trop waa si réew mi nga xam ne ni maanaam mooy Sénégal. léegi ñu ñëw ci début bi. Mhm. jékku ñu jékki rek xanaa fekk seen kër ñu toog ñeen teg ko tabax ko ñu ñëw toj. ñu toj ko déedéet am na lu jiitu loolu. waaw am na lu jiitu loolu lan mooy euh, man bi may jënd kër gi foofu parce que man si ñu njëkk a tabax foofu laa bokk man bi may jënd euh, terrain yi la ci ban côté. kunun euh, en face bu bees bi. Mhm. soriwul soriwul côté boobu quoi bi may jënd terrain bi may jënd terrain yi un certain Abdoulaye Gueye moom moo ko jaay Abdoulaye Gueye dëkk Tëngéej. Abdoulaye Gueye bi mu koy jaay c'est la famille Daouda Meng ñoom ñoo ko joxoon pour mu jaay man bi ma jaayee dem na def li nga xam ne ni maanaam euh, euh, bu ñu la jaayee terrain fi nga war a mën a jaar pour euh, pour am ay kayit du leer. Mhm. dem na au niveau de impôt et na ñu génn ma réquisition terrain bi ma dem impôt et domaine itam ñu génnal ma droit réel yi droit réel terrain bi nga xam ne ni maanaam famille daaw de meng ñoom ñoo ci nekkoon. te li nga xam ne ni maanaam moo jaxasoo waat ci mbir mi bi ñu tojee si la lépp feeñaat tamit euh, femme bi ñu wax ne moom moom moom la turam nekk ci titre foncier bi moom fi mu ne nii beneen numéro titre foncier la yor mais loolu xam naa ne beneen beneen mbir la parce que euh, li nga xam ne ni maanaam ñun fi war a dem dem nañ DESCOTE euh, dem nañ au niveau de la DIC porter plainte jéem nañ gis procureur jéem nañ gis maire Tëngéej bi nga xam ne ni maanaam fa lay jéem mm. nañ jot tamit préfet Tëngéej mais ba léegi ni dara amul. waaw toj nañ suñu kër euh, ba xalaat naa ne nit bu fekkente ni danga fekk foo xam ne ni sax moomu loo ko nga tabax balaa nit ki di toj war nga jot sommation wala ordonnance. nga ni femme bi bokk leen numéro. waaw bi mu présenté ak yow bi ñun numéro bi ñu joxoon bi ñu titre foncier bi nga xam ne ni maanaam moo nekkoon ci euh, famille Daouda Meng c'est titre foncier numéro 68 15 R. te mhm. femme bi man euh, yor yotuma kii bi sama sama sama ne ko yoruma ko nii mais femme bi fu mu ne nii dañ ko defalaat beneen plan cadastre. boo xam ne ni fi mu ne ni benn numéro titre foncier moo ci nekk mu nekk mbir moo xam ne jaxasoo na lool lool lool te loolu bu amee euh, xam naa ne ki nga xam ne dañuy jox euh, numéro titre foncier wala nga dem cadastre ñu defaat la la beneen plan loolu euh, xam naa ne ñi nga xam ne ni maanaam ñoo nekk ci nguur gi ñoo ko war a délivrer loolu. maintenant ñaata kër la ñu toj yi ñu toj ñun suñu kër yi ñu toj ëpp na vingt vingt 26 kër la ak ay fondation yoo xam ne tàmbali woon nañ ko ba pare. Hmm. waaw mu nekk si loo xam ne ni ay million yu baree baree baree baree yoo xam ne ni yàqule nañ ko. dafa am euh, ñoo xam ne jotoon nañ ko dëkk foofu am kër yoo xam ne dëkk guñ ci loolu lépp la ñu daal bi ñu am nag amul kenn ku fa dëkkoon parce que ay kër yu pare la woon si 26 xam ne ni maanaam na taxu hmm. kenn rek moo fi waroon taxu si samedi bi samedi nga xam ne ni maanaam dañu toj alxames ajuma samedi bi ñu war a toj am na kenn koo xam ne ni maanaam waroon na taxu si mais ñi si des ñëpp presque amoon na ay kër yoo xam ne nii pare woon na man man sama kër euh, daanaka li si desoon mooy taxu mais litige boobu moo leen tere woon ñëw déménager. wala litige parce que ñun ça fait ça faisait un an et demi dañu jotoon arrêté préfectoral bu wane ne fi ne nee nañ yi nga xam ne ni maanaam dafa nekk foofu yëpp dafa am litige. léegi ñu ñu dem au niveau des DESCOTS DESCOTS nañu nañu dem si ñi nga xam ne ni maanaam ñoo ñu jaayoon. jéem nañ contacter ki nga xam ne ni maanaam mooy Abdoulaye Guèye te famille Daouda Meng jaayloo ko woon après ñun en 2014 un certain Ndiambé Dansoko El Hadj Ndiambé Dansoko bi nga xam ne ni maanaam société am moo tudd AKI mi wax ne moom euh, si côté président Macky Sall euh, la féete moom moo ñëwaat arrêté suñuy travaux ànd ak benn gendarme bu tudd Diop boo xam ne ni des ko lay liggéey ñu arrêté suñu liggéey man bi ñu arrêté liggéey fekk man yéem période boobu daf fekk man ma ñëw vacances man ma ñëw gisante ak El Hadj Ndiambé Dansokho bi ñu gisante El Hadj Ndiambé Dansokho ñu daje bureau Ndiaga Pouye bi nga xam ne commissaire priseur la El Hadj Ndiambé Dansokho defaraatal ñu beneen acte de vente ma fay sama li mu wax ne acte notarial la muy cent 816000 boobu ba léegi ñun ñu ngi taxaw El Hadj Ndiambé Dansokho mi nga xam ne ni maanaam société am AKI la tudd mënuñu ko jot Abdoulaye Guèye mi nga xam ne ni maanaam njëkk na ma jaay mënuñu ko jot daaw demee nga jot jox nañu benn boo xam ne ni coow leen dëkk moom mënuñu ko jot te ñoom ñooñu amu ci kenn koo xam ne ni ñoom ñëpp porté na la ñoom plainte au niveau de la DIC ça euh, bu fekkente dañ lay jaay ne ni maanaam tey bu ñu jaayeen ni baax na parce que ñun la seule nga xam ne ñu deful mooy dem devant un notaire parce que titre foncier fi nga koy jëndee mooy devant un ñuy kër ak ñi nga xam ne ni maanaam dañ am ay terrain yu foofu amu ci kenn koo xam ne ni dem na si devant un notaire ñoom bi ñu jaayee lan la ñu wax continuer leen tabax parce que fii titre foncier global la boo leen liggéeyee ba ci kanam après ku nekk dina jot sa titre foncier individuel. mais ñooñu euh, coordonné rek moo leen lié amul lenn loo xamante ne lié na leen ba boo leen mun. Euh, jot téléphone. Mhm. ngeen mën leen am ci beneen anam. coordonné rek parce que man El Hadj Ndiambé Daxaso moom si siège am mu ngi nekk si en face euh, euh, Brioche Dorée si rond point Yoff bi si siège yu Macky Sall bi fi mu nekk foofu dem naa fa dem naa fa deux à trois fois waa ji nekk fa boo ko woowee téléphone le gars il est injoignable. Hmm. Abdoulaye Gueye bi affaire yi amee man dañu toj jeudi alxames ma jógee France ñëw dimanche woo na ma ni benn numéro WhatsApp boo xam ne nii numéro Dubaï la naan di ma woo di ma masawu si koo xam ne nii maanaam li ñu dal yëpp ñooñu ko teg. ñoom ñooñu noonu muy Abdoulaye Guèye muy euh, Ndiaga Pouy Ciss muy El Hadj Ndiambé Dansoko loolu benn bande escroc la boo xam ne nii maanaam ñu ngi fii te lii dafa nekk loo xam ne ni maanaam dafa bari Tëngéej spéculation foncière dafa bari Tëngéej bari goo xam ne nii fu mu ne nii ñi am problème kër bari na te si département Rufisque rek lay xewee te li nga xam ne ni maanaam moom lañ ciy wax mooy fu mu ne préfet de Rufisque bi nga xam ne ni maanaam moo jiite ñëpp. waaw moom léegi ba ngeen ko diisee mbir mi ba mu ko yëgee lan moo nekk réaction. préfet yëg na ko mais fu mu ne nii pour ñu dem gis ko mooy problème dem nañ ba gis secrétaire am pour jéem a ut rendez euh, mais mën ñu ko gis parce que boo waxee lan lañuy lay wax Covid bi euh, duñu jël ay rendez-vous dugg na kon fa la ñuy fa la ñuy diisee suñu soxla li nga xam ne ni maanaam waroon na ñu def ñu ñu ñu ñu def la naka sudul noonu li ngay def mooy porter plainte dem nañ porter plainte jël nañ suñu pôle d'avocat mooy comme ni ma koy waxoon rek mbir mi du nekk loo xam ne ni maanaam da yem fii dafa nekk benn affaire boo xam ne ni benn combat la boo xam ne ni dañu koy continuer pour li nga xam ne ni maanaam moo ñu dal ñu tooñ ñu toj suñuy kër ba pare fi mu ne nii amuñu len benn retour boo xam ne nii au niveau de la justice sénégalaise fi mu ne au niveau de la police euh, police su Sénégal amul lenn loo xam ne ni def nañ ko Mm. tey jii nii bu fekkonte ne am na koo xam ne dafa sàcc vingt mille wala cinquante mille prison ngay fanaan ñii mënuñu def mënuñu nekk benn bande escroc boo xam ne nii ils ont ñu li ñu li ñu li ñu yàqal ci nit ñi parce que boo ko calculer li ñu yàq ci ay kër foofu euh, milliard bi teg na ñu nekk si loo xam ne ni maanaam ñooñu ñu ngi en liberté ndax lan euh, El Hadj Ndiambé Dansokho bi ñuy wax nii dafa jege Macky Sall moom moo euh, formé coalition boo xam ne nii coalition mi ngi tudd AME encore alliance Macky encore 2019 ñun ñun mooy li may wax chaque jour rek du ànduñu ak Macky Sall on n'est pas des politiciens ay ndaw lañ ñi si ëpp si ñi nga xam ne dañu toj seen kër ñu ngi nekk bitim réew. mais c'est quoi euh, ñu toj seen kër ak mbirum politique. mbirum politique parce que bu fekkente ne waa ji nii kii ñu porte que plainte ça fait un mois moom mi nga xam ne ni maanaam moo def jéey ji nii. jaay ñi ñi ñi toj seen kër foofu yëpp moo leen jaay terrain te ba léegi nii ñun ku si nekk def nga euh, plainte individuelle suñu collectif tam ñu def euh, plainte collectif te ba léegi nii waa ji mënuñu ko jàpp si koo xam ne ni li mu def escroquerie la waaj ji nekkul benn euh, waaj yoo xam ne waaju ndaw la parce que lii bi mu ko dalee def yàgg na def na ko en 2008 boo xam ne nii maanaam moom ak euh, ancien gouverneur Saliou Samb ak jabaru saalu Samb ñoo ñoo defoon benn escroc boo xam ne ni benn gayaan bu nekkoon à l'extérieur ñu jaayaan ko benn terrain 31 31 millions defaat na ko fi en 2019 euh, ñàgg benn waay boo xam ne nii moom mu ngi ko escroqué euh, ay 9 ectare boo xam ne nii ça lui a cent 350 millions. kon hmm. kii dafa nekk koo xam ne nii maanaam yàgg de def li muy def nii léegi genre nit ñi nag pourquoi ñuy def lii ba pare nekk en liberté continuer def li ñuy def ba pare ñu ne moom ay santé ni day jàppale El Hadj Macky Sall ba village bi nga xam ne nii maanaam foofu la dëkk di jënd ay di jënd ay ay ay ay ay ay ay ambulance di fa yóbbu. ay ay bu ay match nawetaan bu amee ay final nawetaan bu amee ñu pare ne ko ko mu di fa joxe ay millions kon kooku suñu xaalis lay yàq si dëkk bi. parce que dafa jotoon am ay euh, contentieux ba ñuy condamné ko. moom jot na tëdd prison waa ji. waa ji il a déjà fait la prison. et vous n'avez yéen ba ngeen koy jox loolu avant la wala après. non man bi man waa ji man waa ji bi ma koy gisee en 2016. man bi ma jëndee terrain yi comme ni ma la ko expliqué El Hadj euh, Abdoulaye Guèye moo ma ko jaay. Mhm. bi moo koy jaay c'est famille Daouda Meng bi ñu koy signé bureau Ndiaga Pouy 6 la ñu ko signé. en 2014 njàmbee dans ce ko boobu moo ñëw ak gendarme bu tudd Diop arrêté suñuy travaux. man bi ma demee des ko dañ ne ma demal nga gisanteeg El Hadj Ndiambé ko ñu gisanteeg moom encore bi la Ndiaga Pouy 6 mi nga xam ne nii maanaam te moo xaw ma commissaire priseur la xaw ma huissier wala jàppale nit ñi nekk doomu jokkul ba pare bàyyi ñu si biir ñu yàq ay millions ci loo xam ne nii maanaam bu doon doomam wala kon ni ma koy waxee rek bu doon keneen ku jege mbokkam du ko def loo El Hadj Dambé Dansokho nag li tax muy def lii dafa jege Macky kuy jàppale Macky Sall koo xam ne ni 2019 nee na réaction Macky Sall moom jàpp na si kon kooku bu fekkente ne tey ji ñun ñëpp ñu porté plainte te ba léegi nii waa ji mënuñu ko jàpp kon y a un problème war nañu ko xam pré waaw war nañu ko xam war nañu wax euh, lan mooy problème bi war nañu wax fi mu ne nii waa ji nii pour jàpp jàppuñu ko ba léegi te mu def loo xam ne nii maanaam lu ne feng la te jàppuñu ko ba léegi. maintenant euh, lan ngeen fas yéene def. li ñu fas yéene def mooy euh, asu dem nañ fi nga xam ne nii fa la fa la mbaxane doone benn comme ni ñu koy waxee. porté nañ plainte ça fait euh, un mois pile poil bi ñu porté plainte bi ñu demee dig porté plainte ça fait un mois un mois de cela dara amul amuñu benn retour boo xam ne nii am nañ ko. léegi nag fi mu ne nii lenn moo ci des ñu ngi koy jéem a médiatiser ñu ngi koy wax ñu ngi koy wax mais looy wax bu fekkante ne amul amul amul amul lo saafara tamit fan nga ko mën a waxee. Mm. jël nañ suñuy avocat ñoom dinañ jéem def li nga xam ne nii maanaam mooy seen liggéey parce que ñun euh, duñu ay avocat ñun ay simple citoyen lañ yoo xam ne nii euh, yàqule nañ. bi ñu yàqulee dem nañ fi nga xam ne ni maanaam fa la ñu war a dem def nañ li ñu war a def léegi dañuy bàyyi yoon def liggéeyam man li may souligner mooy lenn genre nit ñi war ñu traîner ci dëkk bi. te dañ leen di bàyyi te fu ne waa ji fu nekk fu nekk ay yoof ak euh, njaxiraat ak fu nekk lay dem di di def ay ay ay ay affaire affaire foncière te ba léegi le gars il est en liberté on attend euh, sa version que aussi euh, comme dañuy bañ def loo xam ni dafay xaw a euh, nekk deux poids deux mesures wala mhm. boobu en tout cas lu équilibré la ñuy wër mhm. à tout moment bu nekkee am na moom mën bëgg na euh, daal di ñëw répondre wala kenn ci jege ñaaleem bëgg ñëw répondre ñu ngi koy euh, xaar parce que voilà foog ñu am deux versions yi pour pouvoir peut-être extrapoler mhm. euh, comme mbir moomu am na def toog ngeen ko ci loxo yéen yoon mën nañ jàpp ne yéen moom yéen a ngi toog di xaar ñu ngi toog di xaar mais asu xam nga looy toog di xaar tamit euh, bu xam nga dafa dem ba yàgg moo tax ñu di ko joytu ba léegi dafa yàgg parce que bu fekkente ne da nga porte plainte benn gayen boo xam ne wala nit koo xam ne nii maanaam tey. foofu moom toj nañ ko. rasé nañ ko rasé nañ ko. ba fi mu ba fi mu ne nii commencé guñu fa benn travaux fi mu ne nii nag foofu ay problème rek la parce que démb il paraît am na ay nervis yoo xam ne nii ñëw nañ fa parce que ay xale yoo xam ne nii ay mbër lañ. yoo xam ne ni maanaam dañu dëkk Tëngéej il paraît dafa am ay gars yu leen jël di leen fay ay 2500 ay 3000 par jour ñuy bu fekkante ne sama rakku mbër yi wala sama mbëggu mbër ñu ngi may dégg nga côté yooyu noonu ku leen fa fay pour ngeen di garder bu leen fa dem di garder parce que ay problème rek la ñu ngi taxaw di xaar boobu ba léegi femme bi nga xam ne nii moom la ñu wax ne moom moom moom titre foncier bi foofu cadastre defaatal nañ ko benn plan benn plan bu bees tak man maa ngi plan bi ñu defal ko beneen numéro titre foncier loolu nag man li ma gën a jaaxal loolu si la bokk ñun mën nañu bi ñu jaayee titre foncier bi nekk 68 15 R léegi fi mu ne nii femme bi ñu joxaat que beneen plan cadastre defaraat ko beneen numéro titre foncier xaw ma nag ban pays lañ nekk ban dëkk lañ nekk. Mhm. Euh, la bàyyi ah, merci à su en tout cas si invitation bi et encore félicitations si liggéey bu rafet bi nga xam ne nii maanaam euh, moom ngay def. Euh, ñu di la suivre partout dans le monde ñu gis tamit si site internet yi nga am ay retours yu baax a baax a baax a baax di la souhaiter bon courage waaw di la wax ne bul gestu xoolal ci kanam parce que Sénégal la ñu nekk. am na si ñoo xam ne nii maanaam tey bu fekkente ne asu day dem dañ koy jéem a koy jéem a galgal te bul xoolal comme que jigéen nga moom des fois dina gaaw mais euh, na nga jàpp rek teewu baax waaw di nuyu waat waa population rufisquoise waa di waxaat autorité Tëngéej yi que ça soit préfet que ça soit maire de la ville que ça soit maire commune arrondissement que ça soit député yi nga xam ne ni maanaam ñu ngi Tëngéej fi mu ne nii seeni doom sonn nañu parce que boobu ba léegi ñu ngi ñaxtu génn nañ si fépp pour wax li nga xam ne ni maanaam moo ñu metti muy suñuy kër yi nga xam ne ni maanaam toj nañ ko au niveau de mu ne nii na si jàppale jërë ngeen jëf d'accord mu nekkoon Omar. Euh, Omar Samb Samb voilà muy euh, porte-parole ñooñee nga xamante ni kunun la ñu féetee ñu daal di euh, tëj seen toj seen ay kër lu ci toll ci ñaar fukki kër ak juróom-benn ñu toj ko te jàpp nañ ni anam bi ñu ko tojee dëppawul ak yoon ñu ngi xaarandi li nga xamante ni moom moo di version ñee yi nga xamante ni ñoom ñoo la ñu teg au banc des accusés Euh, saa yu ñëwee rek ñu daal di koy def ñu ñu daan def comme tous les jours ngir dox rek ci équilibre li moo nekkoon tey seen émission euh, matin bonheur ci seconde bien sûr dernière partie de l'émission demain spéciale rétrospective avec bien sûr Euh, nos journalistes ak quelque aussi euh, consultants et experts ñu waxtaanee li xewoon ci at bi ci plan politique économique social et aussi sanitaire c'est important rendez-vous demain allah dans votre euh, émission matin bonheur di jaajëfal ñëpp ñu àndoon ak ñun euh, mu di euh, techniciens yi di internautes yi euh, Origine FM les auditeurs ak képp koo xam ne téléspectateur bu 2STV nga ñu lay jox rendez-vous demain passez une agréable journée.